salaamaaleykum ñu ngi bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp di leen bëggee voilà je m'adresse à Cheikh Yérim Seck di ko lancer benn message Cheikh Yérim Seck déglu nañ sa déclaration bi nga def après sa libération bi ñu ngi la dégg yaa ngi remercier sénégalais yi kon yaa ngi soog a xam sénégalais yi ne ñoom bëgguñu injustice Cheikh Yérim Seck il est temps nag nga ranger wu derrière le peuple Cheikh Yérim Seck tu es un bon journaliste un excellent journaliste am parcours boo xam ne c'est un parcours atypique l'heure est grave au Sénégal gis nga mal gouvernance bi fa am Cheikh Yérim Seck gis nga injustice bu am Sénégal subir nga ko tey parce que da nga génn di wax sa xalaat en tant que journaliste ñu jàpp la dóor la garde à vue ci ay conditions yu bon yoo xamante ni dafay bafouer dignité humaine di la jéem a intimider dóor la sous contrôle judiciaire ci wax dëgg parce que da nga gis loo xamante ni dëgg la nga wax ko da nga wax pour défendre sénégalais yi défendre défendre l'intérêt des sénégalais gis nga nga dund injustice bii nii te injustice bii nii nga dund tey Cheikh Yérim Seck xalifa Sall dundoon na ko nga taxaw. di ko négliger di ko jox tort ci sa ay analyse mosuma ci d'accord ak yow ci dossier Khalifa Sall bi parce que à chaque fois foo toogaan dangay wax ne Khalifa Sall jël na luñ koy tuumaal dëgg la te loolu yëpp bëggoon lu neex ma ak Sall moo tax nga ko doon def tey jii nag dund nga injustice bi nga xamante ni moom la Khalifa Sall dundoon maanaam bukki bu mattoon Khalifa Sall matt na la gis nañ fi tamit sa ay sorties incendiaires yoo def jëmale ko ci Ousmane Sonko di ko dal dal ci kawam mu mel ni danga nekkoon mercenaire wu Macky Sall ba tey injustice bi ñëw dal sa kaw Sénégal yépp fàtte fu ñu féetee ànd ak yow bi ngay attaqué Ousmane Sonko waa Pastef yu bëri mere woon nañ la ñu ànd ak Ousmane Sonko ñu bari mere woon nañ la waaye bi ñu la jàppee dañoo ñëw taxawu la jàppale la xam ne injustice ngay dund. xam ne tu un journaliste da am droit def sa ay analyse wax sa xalaat da am droit tamit défendre sa réew muy Sénégal kon nag Cheikh Yérim xolaatal sa bopp bu baax a baax a baax nga féete ak sénégalais yi Cheikh Yérim les sénégalais sont fatigués te yow xam nga ko bu baax a baax a baax a baax bépp journaliste muy yow ak sa moroom bu leen nangu mukk nguur gi di leen utiliser au détriment des sénégalais bañ leen loolu. parce que xam ngeen lu tax Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñëpp te dañoo war a jàpp ci combat bi pour Sénégal am un vrai changement sénégalais gis seen bopp ci seen réew mi li ñu moom ñu leen koy delloo instant bi Sénégal nit ñaa ngi ñàkk ndox nekk ci mbedd mi li gën a ñàkk solo nit war ko mën a am ci nguuram le minimum mooy nit ki. war na mën a am ndox mu naan war na mën a am courant war na mën a jàng école loolu yëpp ñun amuñ ko nit ki timit war na mën a feebar faju te gis nga Sénégal li fa nekk yaa ngi gis détournement yi fay am ci ay nit ñoo xamante ni dañuy ñëw ñu fal leen ñu enrichir enrichir seen ay xarit te loolu yëpp da ngeen ko war a xool bu ngeen gisee dëgg daleen ko wax te ngeen moytu di trahir sénégalais yi ndax bandi yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci nguur gi di séddoo nguur gi di séddoo réew mi ñu ngi séddoo suufu Sénégal di séddoo alalu Sénégal di séddoo ressource su sénégalais yi sénégalais yi lu ñu moom mënuñ cee jot président de la république ak gouvernement yam boo xamante ni ñu ñu jiite bu ñu feebaree sax mënuñ leen faj. mënuñ leen jox ndox ñu naan eau potable waa Cap Skirring génn nañ fi di marche ni amuñ ndox ñu leen di duma duma yi métti gis nga tey Dakar la mooy capitalu Sénégal bi ñu ngi génn amuñ ndox une semaine ñuy wër ndox muñ naan mënuñ ko am gouvernement incapable boo xamante ni mënul sax jox population yi mu naan mënul faj population yi ay abri provisoire di continuer di am ba léegi. ay doomi réewam mënuñoo jàng jàng bu normal te ñu leen entouré ñëpp ñu ngi ci ay conditions yi bien muy seen ay doom seen famille seen ay xarit seen ay farandoo loolu ngeen war di wax yéen journalistes yi su fekkee bëgg ngeen Sénégal jiital leen intérêt Sénégal ak yéen waa Sénégal yëpp te bàyyi jiital seen intérêt personnel.